fatt fii génn fii euh, li nga xamante ne moom mooy euh, chasse aux sorciers yi ñuy def jamono yi pour génne xaalis ñi war a fay seen kii euh, nu mu tudd taxi yeeg yooyu noonu yëpp ñu dajale ko est-ce sera quand même suffisant pour que ñu gis ci li nga xamante ne moom mooy diggante deux mille fii ba deux mille vingt neuf ñu gis ci benn pas boo xamante ne xëy na dinañ ne ils peuvent réussir li nga xamante ne moom la ñu def référentiel ils peuvent le réussir horizon deux mille cinquante waaw mais xam nga sànq Amina dafa lu am solo te mën na bàyyi xel li mu wax moo di euh, ngeer àdduna du dem du doxee noonu gis nga ci même charge bi la ci même charge bi même réponse bi même réponse bi lay indi quoi ci livre yi nga wax xam nga tout à fait c'est tout à fait vrai Amina xam nga booy dem campagne électorale da nga yor sa sa projet projet boobu mënoo ñëw nii moom laay gouverner Sénégal mënta ne parce booy dem campagne. affaire u parti n'est pas n'est pas une affaire de l'État État du parti mënoo jël sa projet nga ñëw ni moom laay gouverner alors que am na ay alliés yoo xamante ni dañ ñëwoon à travers une coalition jàppale la ku si nekk attends ma ñëw non non waxaguma ñëwaguma si logique boobu déglu rek ma expliquer la non dama dama lay dimbali rek pour pour pour pour alliés yi boo leen moo ci rek yéen gën a dooleel sa argumentaire ni mbir yi lay doxee boo demee partout dans le monde coalition politique mooy dem ba jur bu ñu toogee yow sa projet da ngay woo allié yépp ñu ñëw ku si nekk am lu mu njàmbaas am lu mu yokk indi xalaatam Abdourahmane Diouf xam-xam bi mu am sur le plan éducation indi ñu dolli ak projet bi nga xam loolu mooy référentiel loolu mooy indi référentiel loolu la président Macky Sall def loolu tax yoonu yokkute boobu mu campagne woon jur PSE plan Sénégal émergent dafa am ñoo xam dañ si dollu des gens expérimentés yoo xam ànduñu mu amélioré quoi amélioré pour gën a perfectionner adduna bi noonu la ah. ñu waxoon <laughs> yéen kay foofu ngeen rey seen bopp nag sëriñ beneen bi ñii ñu xam fi ñu jëm lañ ah waaw ñii ñu xam fi jëm lañ courant bi cher na de na lépp cher mais dama ne la ñu xam fi ñu jëm lañ ngeer ngeer déglul ma déglul ma argumenté quoi sabotaw ma de je suis dans l'analyse politique ah, d'accord xam nga on a parlé de dix-huit mille milliards ñoom bi ñëwee dafa am politique bu ñu adopté te waxoon naa ko fii d'ici quelque temps Sénégal bu doon leb 10 jàppal ni taux d'endettement am dana wàññeeku dootul leb 10 ba moytul ci cinq la jëm dina wàññeeku parce que politique bi ñu jëm a tax politique yaatal l'assiette fiscale lu tax ñu ne dañuy yaatal l'assiette fiscale pour ñëpp mën di fay impôt c'est pour mobiliser fonds bi fonds bu financé ñoom référentiel bi ñu yor moo tax ñu ñëw pression fiscale bi ñu doon wax teg nañ ko maison de presse yi du maison de presse yi kese ñooy dund pression ñoom ñëpp ñu ngi dund pression fiscale bi ñi daawul fay impôt exonération yi ñëpp ñu ngi fay loolu yëpp c'est pour mobiliser toute cette somme là pour mën a financer ñoom tey projet bi nga xam ne moom lañ bëgg a jëmal pour Sénégal dix huit milliards yooyu dix huit mille milliards yooyu mais xam nga fisc loi bi moo ko organisé c'est tout à fait normal fisc da nga ko war a fay ñi war a fay ñi nga xamante ni waruñu dañu war di fay impôt ñooñu ñoo war a fay impôt léegi nag si fay impôt boobu si lañ bëgg a mobiliser tey seen somme yëpp pour finance seen développement boo demee réew yi gën a dans les plus grandes démocraties si fisc rek la ñuy ñu si bëree bëri certes nag am na ñoo xam dañuy leb mais ñu si bëree bëri si fisc la ñuy daje mobiliser seen somme pour a financer seen développement mais mais quand même soo bëggee bras de fer ak li nga xam ne ñooy les patrons de d' entreprise mhm. ci affaire de fisc bi fu ñuy mujjee mooy tëj bu ñu tëjee taux de chômage bi day gën a yokk de te loolu day suuxal ab réew waaw ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses ñu war a fay lañ fay quel que soit impact bu mu mën a indi ñu war a fay nañu fay rek donc logique boobu jàpp naa ni ñoom dix huit mille milliards yooyu nga ni trop de impôt dama la wax sa patron mu fay presse mu fay impôt loolu mooy ah, dëgg ah, du accusation dama nga wax ko kon jàpp naa dix huit mille milliards yooyu <laughs> ñoom xam nañ fañ koy mobiliser parce que ñu ngi liggéey si loolu à travers l'assiette fiscale li nga xamante ni ñu ngi gën yaatal taux de national bi pour am fonds yooyu pour mën a fay li nga xamante ni moom mooy. seen projet nee na impôt ci waroon a gagné. li nga wax si FMI sax c' est tout à fait sànq loolu bëggoon naa la ko laaj. dindi ko taxawal dindi ko. FMI lu mu wax nga ni. dama ne FMI nee na Sénégal bi Macky Sall di dem bàyyi na fi loo xam ne ñi mën nañ ci gouverner. waxul loolu. lu mu wax FMI waxul loolu. lan la wax. FMI waxul loolu. déedéet bu jaxasee bul exister waxal li mu wax. dama ne la xam nga FMI ñaar moo si am. FMI benn waxuñu dëgg ay waay Samba waxuñu dëgg man maa la wax ah, loolu waxuñu dëgg. newal FMI n'a pas dit la vérité kon man weddi woo ma FMI nga weddi d'accord. mais Fatima jël kàddu ah, si je comprends si je comprends waxi Mbour Kajoor la si je comprends l'analyse de Serigne ça veut dire que le jub jubal jubal xam nga kon man maa ngi doog peut-être comprendre ni seen vision Omar est-ce que da nga koy partager ak man ça veut dire que euh, dinañ fexe ba euh, recette yeeg euh, richesse bi ñu am ñu financer ci defar ci. maanaam jaarale ko ci jubbanti bi nga xamante ni war nañ ko def ci yenn secteur yu bëri jubal ko ba kenn ku ci nekk mën ci gis boppam pour que ñu mën a financer li nga xamante ni moom moo mën a jëmale Sénégal kanam est-ce que ni ma ko xalaatee nii noonu la. noonu la ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom la ñu bëgg. Hmm. ma ne ko loolu la ñu bëgg quoi léegi fan lañ koy jaaree. Euh, loolu moom mooy problème Sénégal vraiment waaw euh, waaw parce que parce que comme on a dit euh, ñoom si lu ma jotal gum dégg si lu ñuy wax mm. boo xoolee ak tamit lu ñu accentuer da ngay xam ni si côté fiscalité la ñu gën a lañu la ñu gën a accentuer mm-hmm. parce que bu fekkoon ni tey jii dañ ne woon en fait comme euh, faire de Falémé bi ñoom dañ ne dañ koy arrêté bu fekkee aujourd'hui ils avaient les moyens exploiter ko seen bopp di ko utiliser di ko transformer sur place peut-être loolu mën na tax léegi tamit côté industrialisation peut-être mais loolu ay projet à long terme la est-ce que industrialisation bi ñuy def est-ce que dañuy ñëw comme c'est le même mécanisme jël ay euh, investisseurs ñu ñëw liggéey après di leen joxaat ay redevance wala dañ koy changer mais en tout cas bu fekkee ci pression fiscale bi Euh, boo xoolee actuellement Euh, tous les pays du monde ñoom ils son confrontés au même problème mooy le budget il est trop serré maa ngi gis euh, même en, en Italie euh, mm-hmm. Meloni. Mm-hmm. di wax loolu ne budget bi dafa nar a serré boo xoolee France actuellement Euh, le premier ministre bu ñu mujj fal. boo xoolee lu mu def c'est comme Ousmane Sonko en fait lu mu def. mooy en fait France metti na dëkk bi metti na ainsi de suite léegi ñoom ban solution la ñu gis mooy ils vont taxer les plus riches. xam nga taxation yi ça dépend tey jii si tu peux une société boo xam ne dem na def ba def ba def chiffre d'affaires ba génnee bénéfice nga ñëw ne ko ah yow de tu as fait un bénéfice boo xam ne d'un milliard bénéfice quoi loo xam ne fay nga say charge def nga lépp ah. Euh, ma ma ñëw jël si benn xaalis euh, loolu ñu ne c'est zéro virgule trois pour cent des mm. français lay doon xam nga mm. loolu ñu muy laal bëriwul mm. mais bu fekkee ni en fait tey jii comme j'ai eu à le dire bu fekkee ni tey jii da nga ne en fait des subventions ciblées est-ce que subvention ciblée yi aussi c'est une solution je pense pas aussi parce que subvention ciblée bi boo xoolee après population bi moom moo si yëgaat euh, métit bi parce que tey jii day mel ni benn société bu doon defar Euh, euh, boo gisee société yu bëri bëgguñu implanté wu Afrique euh, wala surtout si biir monde rural bi mooy monde rural bi amoo électricité par exemple léegi pour nga am électricité des fois foo nga utiliser ay solaire wala yenn kiiw ak yooyu wala sax électricité bi coût électricité bi day jouer ci production bi lépp looy mënti defar bu fekkee ni yow état bi subvention bu mu doon def defatu ko léegi yow sa produit bu fekkoon ni cent franc nga koy jaay deux cent nga koy chéré comme état bi tey ji bu ñëwoon sax am lenn loo xam ne ni wàññi na ko si dëkk bi euh, population